kontaan rek ndax fu ma julli woon ñaan yàlla na génn fu ma julli di déglu Iran Ndaw lu muy wax toujours ma ne ko bu mu xaddi tukkuleer la do na ci jàpp rek yàgg yàgg dina génn dina génn. bi ñu yëgee fii ay 18h ne Khalifa génn ñun ñëpp kenn dañ na noonu mënul nekk après sunu benn copain baaba ki nga xamante ni mooy communicateur euh, mooy géwélam waat waataat ñun ci la ñu soog a gëm ni dëggantaan Khalifa Sall bàyyi nañ ko après. instant bobu ñun dañoo dof mais dof bobu mbégte la parce que dañoo xam valeur Khalifa Sall la Khalifa Sall du politicien man je suis agent de ville je travaille pour Khalifa Sall mais Khalifa Sall du politicien lutax du politicien parce que yorul jikko politicien tay bo ci xol en retour du ci du kenn ko xamanteni dina ci dund ak mom règlement de compte lolou du esprit politicien Khalifa c'est un leader shit Khalifa c'est un homme c'est un homme de valeur quoi laa la mën wax. benn bu ko bëggoon rek fukk bëggaat nako ndax fulam ndax kat dafa dugg kaso nag duggee fa ngorok ak fulla feebarul portul malaat socc sax bu ko defee du ko wax day toog ak moom rek ni dërëj kenn xamalu ko dara kenn mësul dégg ne Khalifa Sall wax na lu ñaawlee wala jàmbat na walla port na na pala malade ñu yóbbu ko hôpital ndax bëgg ñu dinañ ko gracier wala nañ ko may fulla la fa toogay ngor ak jom gi mu doon nàmp ko do nàmp ko ci ndeyam doon na ko ci baayam ndax Alaaji Mbay Sàll kep kuy deuk Grand yof mba nga bokk walu rek xam nga ko. bet nañu kañ ndax ken yëgu ken foogu ke woowoon ken ken ken amul ken ku la mën wax ni amon no ndort ni Xalifa Sall dañ koy baye demba ken ñu ñep dañu bet dañoo bet bet bu métti lañu def mais sante yàlla rek. khalifa ababakar Sall ku dëkkul Grand yof sax waxuma la sax Grand yof fi moy baasu khalifa ababakar Sall parce que fi moy ban jaaxle. Khalifa ababakar Sall ay mbokam ñi ngi fi ci ginnaw ku dëkkul Grand yof muy HLM muy Jëppal muy Liberté 5 muy partout au Sénégal Khalifa ababakar Sall génnam bi tey ñëpp ko ko yene dafa nek nit ko xamni vraiment nit ku bax la ñu ko koy sédel Khalifa ababakar Sall nek nit ko xamni nit ku teel. am ci mbecte bu reuy di sante yàlla di sante suñu borom ndax mom Khalifa borom bax la ku gëm yàlla la. ku gëm yàlla la ndox lépp loo wax mu ne la yàlla yàlla la kon nag doomu aadama bu gëmee yàlla rek da xam ne julit piir la Khalifa ku ko fekk prison nga xam ne julit piir la ku gëm yàlla la nattu la nag boo xam ne mënu woon ñàkk ci destin la bokk ci chemin la bokk. waaye ñun dund ci coono ñun dund nañ ci coono ndax dund nañ ci ay lacrymogène man mii di wax ak yow. sànni nañ ma fi ay lacrymogène ay policiers attaqué nañ fi xale ba hospitalisé nañu te dinañ fi ba guddi ay policiers ñëwati bi jàpp suñuy doom ñu nekk commissariat Grand Yoff ba ay 2 heures du matin du nañ ci ay jafe-jafe yu méttee méttee. 100 mètres ay lacrymogène lañ ñu doon dóor te ñun xeexuñu xulawuñu lu dul suñu leader génn ñu toog di ko accueillir. ñu ñuy door ay récolte seen morcel ay mag yu daw ñu ñun ñuy daw di waggi waggi sonn xam nga ne loolu coono weesu weesu ko métti weesu ko waaye nag nday métti ñu koy muñ lu ne daj nañ ko lu ne daj nañ ko daanu nañu rëq nañu foxoj nañu waaye nag dañ koy soppata ndax suñu leader yàlla ñu yàlla may ndam. Euh, gannaaw bi ñu sante suñu borom jul si yonent bi sant Serigne Touba Serigne Mountakha ndax damay wax ne wa dëgg yàlla Dakar ñun jig nañu. Dakar que parce que li xew àjjuma à monter à monter indi kon ñun suñu xel na parce que man dama bind dans dans un dama ko le maire Cheikh le maire Cheikh Gueye xamal ko ne ko ji ngor ak mais bu négocier wala poste du fa sax mais ngor ak dignité fa aussi ñu nangu sacrifier

nañ la pousse pale lañ jublu jublu ñu leneen te ñu askanu Grand Yoff ñu ndaw Grand Yoff ñoo si tey ñoo si ginnaam ëllëg ndax moom chaque fois rek li mu ñuy wax jàpp leen dina baax jàpp leen ñu liggéey bu kenn dóor kenn bu kenn saag kenn nañ leen booloo xool yi pousse te bu ñu boolewul xool rek du baax te moom gëm boobu moo nekk si moom saa ñu di ko seet si loolu la ñuy wax jàpp leen damay génn léegi du metti daf dara ndax man mi nekk fii sax ma sama xel a gën a daje ñi nekk si biir te noonu la demee te seen gis ngeen ko moom mu génnee

bu ñu bëggee mu avancer jaar ci yoon nan ko jël parti socialiste la main dans la main teg ko ci loxoy Khalifa Ababacar Sall man maa ko wax mu jox leen nguur bëgg ko xippi seen bët di ko xool gisewuñu ko ñàkk fayda ba fonk ko nag ndax fullaam ak faydaam monsieur Coumba Ndam Baba ak Mar sama sang bi Fambe nga fal Fati Ali Fambe nga fa dokk Yegi fati gini eh. ko anna anna mbooj ndiku takko maram njaay eh. wuri jaw mam aysa naalew eh. ñu ni fatma yaayu lingeer yi aysa yaayu barag yi oh. maamam lingeer la mm. maamam barag la mm. bu xëccoo pal bu si yàlla àndee war naa falu ndax maama daan toog ca piliyaan ba nag naan jaam yi def leen ñuy def